إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جنابنا سنتات يا الله سبحانه وتعالى dëgg-dëgg cant ci ni mu yeyoo màgg ak sell ak kawe nu ngi sàkku ci moom ndimbal te it di ko jéggalu sunuy bàkkaar te it di tuub jëm ci moom nuy musulu ci sunu mbon mboni bakkan ak sunu ñaawtee fi ay jëf di gëm tey seede ni képp koo xam ne yàlla subhanahu wa taala jubal na ko kooku dara mënatuloo dëngalooti wala dara mënatu koo dëngalooti waaye képp koo xam ni borom bi subhaanahu wa taala bàyyi na kook boppam ba mu sànku kookee kenn mënatu koo gindeeti nu ngi seede ni amul lenn lu nu war a jaamu jaamu gi di tëre ci dëgg tege ci dëgg tey jur ay njariñ ñàkk gee jaamul tege ci ay neen tey jur ay lor lu dul yàlla subhaanahu wa taala di ko seede di ko jaamoom kese duñu ko bokkaaleeg lenn waxumala kenn di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi jaamam la ndawam la moom moo ko yónni woon tamit ci nit ñi nuy fàttali sunu bopp di fàttali mbokk yi ñetti laa yooyu nga xam ni borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy wax ci téeréem bu tedd boobee te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon ko ubbee ay jataayam bi ci njëkk moom mooy borom bi mi ngi wax ni yéen nit ñi ragal leen seen borom dëgg-dëgg ragal waaye bu ngeen génn àddina lu dul da ngeen nekk way wommatul yàlla way tuub way nangu kooku mu ngi ci suratu ali imran borom bi di waxaat ci suratu nisa ci tàmbali ba yéen nit ñi ragal leen seen borom mi nga xam ni moo leen bind ci benn bakkan muy bàyyi aadam mu bind ca bakkan boobee soxnaam muy xawaa mu bocc ci ñoom ñaar ay góor yu bari ak ay jigéen ngalawaay na ngeen ragal seen borom mi nga xam ni ci turam ngeen di laajante ak mbokk gi ngeen dox ko bañ koo dog te nu xam ni fu ñu mën a nekk borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ñuy surveiller waaye mi ngi ñuy gis mi ngi xam tamit la nu fa nekkee bi ci des borom baa ngi wax ni ci jeexintalu suratul ahzab yéen nit ñi ragal leen seen borom te su ngeen dee wax ngeen wax wax ju jub te dëggu su ngeen defee loolu day borom bi dana leen yewenal seeni mbir jéggal leen seeni bàkkaar képp koo xam ni topp na yàlla ak ab yonenteem kooku day texe na texe gu bir doon na ci teg ni gannaaw loolu day wax ji gën a mucc ayib ji gën a jub ci wax juñ mas a toog di ko waxtaanee loolu moom mooy kàddu yu borom bi subhanahu wa taala yoon wi gën a baax ci yoon wu ñu topp moom mooy yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaaroon te jaarale foon ay saxaabaam saxaaba yee jaarale fa ñu toppoon ci seen gannaaw lépp loo xamante ni wuute naag loole loole bidaa la bidaa mooy li nit ki def tuddee ko jaamu yàlla te loole yonent beeg ay saxaabaam suñu dellu si woon dana leen ump bépp bidaa dafay jur ak cànkute waaye cànkute gu nekk dafay jural borom mu tàbbi sawar bu ko yàlla yërëmut wala yaadu billahi taala ginnaaw loolu maanaam nuy sant yàlla subhanahu wa taala ci xéewal yi nga xamante ni maanaam dañul di ko dotti ci kaw doomu aadama yi ci ay mbindeefam xéewal yooyu mu nekk ay xéewal yu bari yoo xam ni doomu aadama mënu koo xam ba di ko peeg waaye tamit doomu aadama yi mënu koo peeg ba mën ko wàññi ba xam xéewal yooyu tamit nan la toll bokk na ci xéewal yooyu nga xam ni borom bi subhanahu wa taala defal na ko doomu aadama moom mooy nicmatu nutqi wal kalaam muy xéewalu maanaam mën a wax ak bëgg a wax say soxla wax lu nit ñi mën a dégg borom bi subhaanahu wa taala xéewal boobu xéewal la bu mag boo xam ni ñi am xel tey settantal te ñoom la borom bi di waxal ci alquran ñooñee day xam nañ ni xéewal bi xéewal la bu rëy moo tax borom bi subhaanahu wa taala ba muy lim xéewal yi mu defal ay jaamam daf cee boole woon xéewalu wax borom baa ngi wax ni alam najal lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn borom bi bi muy lim xéewal yi mu defal doomu aadama boole na ci wa lisaanan wa shafatayn al imam ibni kathir rahimahullah bi muy tafsir ba lekk ci laaya ji dafa wax ni borom bi defal na ko làmmoñ woo xam ne moom doomu aadama su bëggee wax lu nit ñi dégg làmmoñ boobee lay jëfandikoo waaye mu defal ko ay tuñ yoo xam ne moom moo muur làmmoñ boobee ba pare walbatiku nekk taar ci kanamu jëmm joojee te borom bi nag subhaanahu wa taala bi mu xéewalee doomu aadama xéewalul làmmoñ daf ko caa digal ay mbir bokk na ci mbir yooyu mu ko digal moom mooy na ko sàmm na ko wattu ba bum ci génne benn kàddu lu dul daf koy génne ci dëgg waaye bu mu wax tamit lu dul la muy wax dafay nekk dëgg te it bu mu wax ci lenn loo xamante ni wóoru ko wala xamu ko ndax ëllëgkat borom bi subhaanahu wa taala dafay xisaab sa làmmoñ bi boole ko cër yi nga xamante ni moom nga am yépp borom baa ngi wax ni wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna alsamca walbasara walfuaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula borom bi mu ni bul wax lenn loo xam ni xamoo ko wala wóoru la wala dese na laa leer ndax kat ëllëg yowmal qiyaam danañ la xisaab ci sa nopp lam doon dégg danañ la xisaab ci sa bët lam doon xool danañ la xisaab tamit ci sa xol lam doon fas ak lam doon fecc loole mi ngi ci suuratul isra aaya fanweer ak juróom benn kon daal su ma bëggee wax damay wax ni aaya bii daal ab peesewukaay la boo xam ne dañ ciy peese lépp loo xamante ni jullit bi war na koo dégg wala mu war koo wax wala mu war koo fas ni loolu lépp daal daa war a tege ci loo xam ni dafay nekk xam-xam bu wér boo xam ni du nekk ay foog waaye du nekk ay njort waaye tamit du nekk ay yaakaar bu ko defee borom bi subhaanahu wa taala bëgg ci doomu aadama bi bu mu wax lenn lu dul looleekat dafa nekk lu ko wóor wala lu ko leer comme ni nga xamante ni noonu la ko ay rëddu baaraamam leeree comme ni ñu koy faral di waxee te it kat du caage ne lépp loo xam ne doomu aadama dégg na ko ci noppam wala lépp lu mu gis ci bëtam rek bañ a def ak settantal waaye mu daal di koy jox ab xolam mu daal di fas xam ngeen xol moom mooy fas ndax bu ñuy wax pas-pas dañuy wax ni xol moom moo koy fas te lépp lu doomu aadama yi ji jëfe jëfandikoo rek la ca jiitu moom mooy ca xol ba mooy daf koy fas kon it ci lépp lu mu gis ci ay bëtam wala mu dégg ko ci ay noppam loolee kat yellul mu daal di koy jël rek sànni ko ab xolam xol ba daal di koy fas lu dul dafa def ak taxaw seetlu xool ndax lii lu ñu war a fas la wala lu ñu warul fas ndax dëgg la wala du dëgg googee seetantal moom la borom bi namm ci laayee joojee su ko defee lépp loo xamante ni doomu aadama bi def na ko seetantal mu nekk loo xam ni wóoru ko wala dese na koo leer wala du dëgg wala jërul fas loolee daal doomu aadama bi du jël lu dul sànni ko ca géew ba nga xamante ni lañ fay sànni moom mooy la nekk ay njort ak la nekk lu leerut ak la nekk ay foog foog moo tax doomu aadama bi mu war a bàyyi xel lépp loo xamante ni mi ngi koy wax nit ñi tamit mu nekk loo xam ne lu ko leer la lu mu xam la ndax su ko defut kat muy nit li loo xam ne leeru ko wala wóoru ko wala xamu ci wala ci njort la ko teg su boobaa dana fasloo nit ñi ci seeni xol loo xam ne yellul woon ñu koy fas te su boobaa bàkkaar ba moom ak ñoom ñoo koy bokk moo tax kenn ci salaf di wax wax ju am solo muy bakri ibni abdillah almuzani rahimahullah mu ni iyaaka min alkalaami ma in asabta fihi lam tujar wa in axtata tudar wa dalika suu danni bi axiik mu ne yow sama mbokkum julit maa ngi lay moytandikuloo ci ay wax loo xam ni soo ca waxee te wax ji nekk dëgg doo ci am benn tiyaaba mu ne maa ngi lay moytandikuloo wax joo xam ne doonte boo ko waxee dëgg lay doon doo ca ami tiyaaba te wóor na ma ni soo ca defee bàkkaar wala nga juum ca maanaam soo ca juumee wala la nga wax du dëgg da nga ca am ay bàkkaar mu ne loolee moom mooy ñaaw ak njort ci sa mbokkum julit la ngay ñaawee njort su dee ñaaw njort ga dëgg la sax booba aw yiw moom yaakaaroo ko caa amee waaye su nekkee la ngay ñaawee njort du dëgg moom faf da nga cay amee ay bàkkaar mu ne maa ngi lay moytandiku looloolee kon ci bunt bu mel noonu ci lañ amoon yéene ci bind bi ñu waxtaanee lenn ci tomb yi nga xam ni ay xew-xew la yu amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma man ko tuddee nattu boo xam ne yàlla daf koo nattoo woon jullit ñi ak seen njiit mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni nattu ba rek yàlla daf koo wàcce woon ci kaw jullit ñi ngir yar leen ak am ay jàngale yoo xam ne daf koo bëgg a génne ñii ñëw ci seen gannaaw man koo jariñoo loolee wala nattu boobee moom mooy tuumaal gi ñu tuumaaloon yaay Aïcha radiyallahu anha soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabi bu baax boobu di Safwan ibn al-Mu'attil ca ba ñu jógee ca gazwa boobee nga xam moom mooy gazwatul Muraysia ba la fa xew xew fa ba yenn ci naafiq yi occasionné wu ca loolee wax ci ay wax yu ñaaw ay wax yu bon yoo xam ni yëngal na Médine ca jamono joojee yëngal goo xam ni xew-xew dootul tiisaat gannaaw xew-xew bi ci kaw jullit ñi ba mel ni xew-xew bii kon daal ci tomb bu mel noonu ci la ñu defoon ab gëstu maanaam mu nekk durusun tarbawiya min xaadisati ifk bind boo xam ni wala ay bind sax laay wax yoo xam ni dafay jëm ci wàllu yar bakkan yoo xam ni ñu ngi koy jariñoo di ko niitoo ci xew-xew boobu nga xam moom mooy xaadisatul ifk su ko defee ci biir xew-xew boobu mën nañ cee génne ay jàngat yoo xam ni dëgg-dëgg ku am ak seetantal dana gis ni ci waxtu wi ñuy dund lu ñu soxla lool donte dañ koy soxla ci waxtu wu ne waaye rawatina ci waxtu wi ñuy dund amaan na yàlla subhanahu wa taala jëriñu ci ñun waaye jëriñ ci tamit keneen ku dul ñun kon ci loolu dañuy wax ni rawa ahlu siyar fi siyarihim kaddahabi wa bni ishaq wa bni hisham wa ahlu sunani fi sunanihim ka abi dawuda wa bni maja وأهل الصحاح في صحاحهم كالبخاري ومسلم حيث يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن زبير وسعيد بن المسيب وعلقم ابن أبي وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اختصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من عن بعض قالوا قال عائشة رضي الله, رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه إلى آخر الحديث كنت خيو خيو بوبو تلن defoon gëstu bu mel nii te gëstu bi yamale wuñ ko ci lenn rek ci kàgguy sunna yi waaye yaatal nañ ko ngir lépp ñu mën cee génne ay njariñ soo xoolee ahlu siyar boo delloo ci seen siira yi da nga ko ciy fekk ku ci mel ni ibni ishaq ku mel ni imam zahabi ci siyaru alaami nubala ku mel ni tamit ibni ishaq ci siyaratu ibni maam ibni hisham ci siyaram ni ki noonu ahlu sunan ahlu sunan tamit soo demee ci seen téere yi ku mel ni abi daawud ak ibni maaja da nga fa fekk lii may wax ni ki noonu ahlu sihaax ku mel ni al imam al buxaari rahimahullah ci saxiixam ak muslim waaye yax bi ñu nitil incha allah yaxub imaamul buxaari la donte nag ci biir danañ ci am ay ndollente yoo xam ne ay fawaid la yu ca nekkut te nekk feneen te wér loolee lépp mën a jur ak matal ak mën a génne faayida yi ci nekk imaamul buxaari rahimahullah mi ngi wax ni toxal nañ jëlee ci abdul aziz ibni abdillah mu ni mu toxal jëlee ci ibrahim ibni saadin mu toxal jëlee ci saalix mu toxal jëlee ci ibni hisham wala ibni shihab mu ni toxal nañ jëlee ci urwat ibni zubair ak said ibni almusayab ak alqama ibni abi waqas ak ubaydillah ibni abdillah ibni utba ibni masud ñu toxal jëlee ci aïcha radiallahu anha mu ni lii kat bañ koy nittali mooy jamono ja nga xam ni ahlul ifk muy ña sosoon sos yooyee xuusoon nañ ci ab deram moom day Aïcha wax ci ay wax yu ëpp wax yoo xam ni mën nañ koo tuddee xobu xël ci gémmiñu tef loo xam ne yellut muy génn ci ab gémmiñ xajul sax ci gémmiñu jullit bi di ci génn moom Urwa mu ni ñoom ñi ñëpp kenn ku ci nekk déglu naa sab nittali ñenn ña kat sax seen nit li moo gën a gudd ña ca des ñenn ñi sax ñoo gën a matale ñenn ñi ñoo gën a wattu lañ dégg waaye mu ni fexe naa ba boole lañ ma wax lépp ba mën caa génne lii nga xamante ni moom mooy nit li bii nga xam ne moom la imam Buxaari di nit li te it ñeneen ñu ko jiitu comme ni ma la ko waxee tamit nit li ko mu ni toxal nañ jëlee ci yaay Aïcha radiyallahu anha muy soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yonent bi dafa baaxoo woon saa su waraan a génn jëm ci tukki dafay bantale ay soxnaam nga xam ngeen yoroon na ci ay soxna lu takk matoon nañ fukk ak benn bi muy génn àddina mi ngi bàyyi fukk ak wa bi may génn àddina mi ngi bàyyi juróom-ñeent loolee nag xaalisatan lahu min dunil muminin moom ci moom rekk la dagan yàlla moo ko daganalal mu ni soxnaam yooyee saa su daan dem di tukki dafay bantale su bantalee képp ku bant bi féete ci yow rek su boobaa moom lay àndal ci tukki ba mu ni keroog bi mu bantalee nag bant ba mi ngi daloon ci moom day Aïcha am na ci beneen riwaaya boo xam ni mi ngi ci saxiix imam muslim dafa wax ni mi ngi daloon keroog ci day Aïcha ak soxna Xafsa boobu mi ngi ci imam muslim waaye nday Aïcha fii mu ni ba mu bantalee mu ni sama bant moo génn su ko defee man maa waroon a ànd ak moom ci tukki boobee tukki boobee nag mi ngi tombé woon ak gazatul bañil mustaliqa moom la ñuy wax gazatul muraysia soo déggee ñu ni bañil mustaliqa moom la soo déggee ñu ni gazatul muraysia tamit xew-xew buy di xaadisatul ifki ca la amee woon. xew-xew boobu nag boo xoolee ci téere yi borom séer yi ñu ngi wax ni mi ngi tombé woon ak atum juróom-benn ci gàddaay gi sanata sittin lil hijra ndey Aïcha radiallahu anha mu ni booba fekk na sax day borom bi subhanahu wa taala wàcc na aaya bi wax ci muuraay booba fekk na jullit ñi ñi ngi muuru yu jigéen yi mu ni ma génn ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu dem ci xeex boobee xeex la boo xam ne tamit boo delloo ci téere yi da nga fekk ñu lay nit yi la fa xewoon ak na na mu xewee woon waaye mu ni ba ñu ca paree bay ñibbisi ci yoon bi borom bi subhaanahu wa taala dogal jullit ñi dal ci ab barab di fa noppalu bi ñu toogee di noppalu nekkete boobee nday Aïcha mi ngi amoon aajoom dem di ko faji bi mu génnee dem ca aajoom jooje yàlla def muy pare bay ñëwaat xelam dem ci ni caq bi mu takkoon ci dënnam dafa dagg dafa rot mu ni bi mu lànd bi ma làmbee sama dënn ma yëg ni caq ba rot na mu ni ma tourné waat dem di ko seeti ndeke tourné gi mu tourné dem di seeti waat caq ba moom moo sabab mu yàgg fa lool ndax yéex na koo gis jullit ñi bi seen waxtu dem jotee xam ngeen giléem yi dafa am lu ñu ci doon teg lu ñu tuddee hawdaj hawdaj mën nañ ko tuddee ab néeg daal ci misaal boo xam ne dañ comme forme mbaar lañ koy defar boo xam ni day nekk ci kaw giléem nga xam nit mën na caa dugg bu naajee du tàng bu tawee du tooy te it dana ko muur ba kenn mën koo bañ a gis loolu daal laa mën a firee xaw daj ci gàttal mu ni bi jullit ñi ñëwee ci giléem gi ndey Aïcha waroon ñu jàpp ni Aïcha mi ngi ci kawam ñu yëkkati xaw daj bi comme teggi woon nañ ko tegaat ko ci kaw giléem gi mu ni xaw daj bi nag ñi ko doon yëkkati dafa mel ni settantaluñ ñi ndekete diisut ndax wax dëgg yàlla lu nit nekk ak lu nit nekkut war naa yomba xàmme waaye nday Aïcha mu ni jamono jooju dafa fekkoon jullit yu jigéen yi maanaam bariwuñu woon yaram lool lañ doon lekk daanaka ñam wu xaw a woyof la moo tax boo fekk na amaguñ yaram de xam ngeen nday Aïcha ci mu jëntalu dundam ko amoon yaram la waaye jamono jooju dafa tuuti woon ndax boobee lañ koy doog a may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni jullit ñi jàpp ni kon man maa ngi ci kaw xawdaj bi ñu yëkkati hawdaj bi teg ko ci kaw giléem gi daal di dàq giléem yi giléem yi dem Aïcha mu ni bi ma wëree ba gis sama caq ci laa daal di ñëw xool xool fi jullit ñi taxawoon gisuma dara mu ni ma woote foofu yépp gisuma kenn koo xam ni mën naa wuyu sax ba ma mën a wax ak moom mu xam ni kon jullit ñi dem nañ waaye comme boobu dafa ndawee ci ay at xelam mayu ko lu dul rek naa toog fii su ma toogee daal amaan na ñoom suñu demee ba seen xel daj ci ni yaay Aïcha gisuñu ko danañ tourné jël si ma boobu xale la lool mu ni ma daal di jël sama place rek toog xelum xale jàpp ko fi mu toog noonu rek gëmmintu daal di koy jàpp mu jaaxaante di nelaw waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam daf doon organiser jullit ñi organisation boo xam ni albashariya ci kaw suuf mësuñoo xam organisation bu mel noonu ci ba yowmal qiyaama duñ xamati bu ni mel mbaa suñ ko xamee dañ koo sàccee ci diine islam yonent da doon def saa su jullit ñi demee rek dana am ku topp ci seen gannaaw kookee mooy mujjee ngir lu rot mu for lépp loo xam ni lu lu lu ñu war a lijjanti ci ginnaaw ñu tardeek yooyu mu lijjanti ko ngir rek kenn du ñibbisi naan sama nangam wadd na nekke keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Safwaan ibn al-Mu'attal la joxoon ñi ko na topp ci ginnaaw jaysh bi muy soldaar si lépp lu rot wala lu ñu war a lijjanti ci ginnaaw mu lijjanti ko nday Aïcha mu ni ma tëdd foofa nelaw daal di may jàpp ma commencé nelaw mu ni bi ma nelawee tuuti rek Safwaan daal di yegsi ibn al Muattal Safwaan nag boobee bi mu yegsi tiim ko rek xam na ni kii nday Aïcha la ndax Aïcha mu ni xamoon na ma balaa aaya muuraay di wàcc mu ni bi ma ko séenee rek ci laa daal di jël muuraay gi muur sama kanam xam ngeen soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon muur seeni kanam donte muur googee nekkut lu war waaye ku ko def moom mooy li gën comme ni ñu ko leerale woon ci ay charit yoo xam ne defoon nañ ko ci muuraay jullit bu jigéen mu ni Safwaan bi mu yegsee gis ma dafa tiit tiitaange joo xam ni jéggi na dayoo tegu ci lu dul rek daal di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ni bi mu waxee loola tegaatu ci benn baat mu ni waxul ak man laajuma loo fiy def laajuma ana jullit ñi moom daal bi mu defee istirjaa mooy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tegu ci lu dul rek yësal giléemam daal di may jàppale ma yéeg ci kaw giléem bi xoolal jamono boobee ak ni mu wéetee ak fañ nekk kenn néew fa xorma ji saxaaba yi amoon ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax na safwaan benn xaraf xaraf Aïcha mu ni waxu koog man mu ni maa kallamani bi kalima wala samiatu minha kalima gayra stirjaihi waxut ak man benn kàddu dégguma tamit mu wax lenn lu dul inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ji ma dégg ci moom mu ni ma daal di yësal ak gileemam ma yéeg ci kaw gileem gi safaan di dox ak tànkam xoolal àll ba na mu soree muy dox ak tànkam di wammatal gileem gi day Aïcha radiallahu anha mu ni bi ñu wommatee gileem gi ba jub si dëkk bi mi ngi tombeeg waxtu diggu njolloor waxtu diggu bëccëg mu ni fekk jullit ñi ba ba yegg guñ Medine ñu ngi taxaw ci pegg dëkk bi mu ni bu ñu yeggsee waxtu diggu njolloor jullit ñépp séenandoo nday Aïcha ak Safwaan maanaam mi ngi koy wommatal gileem gi wax dëgg yàlla su nekkoon ci ni ñii lu bon la doon def ca àll ba wala def nañ ko fa sax suñ doon ñëw danañ làqatu wala boog duñ ñëw digg njolloor wala danañ seet neneen nuñ def waaye ñu set ay der lañ moo tax it ba ñuy ñëw waxtu diggu njolloor lañ ñëw te it direct lañ def ca digg nit ñi ah bi leen yonent bi séenée sallallahu alayhi wa sallam moom it wax dëgg yàlla waxul dara xelam it ñaawul dëgg yàlla xalaatul lenn lu dul rek kon day ndey Aïcha tardé na Safwaan andi na ko loolu mu daal di jeex waaye xam ngeen ni maanaam jamono bu nekk yàlla dana roof ci biir jullit ñi ñoo xam ni dañu koy woote waaye duñu ci ñu dëggu ñooñu la ñuy tuddee ay nafiq nafiq yi ci jamono joojee amoon nañ ab bopp bopp ba moo tuddoon Abdullah ibni Ubay ibni Salul ba mu gisee Safwaan muy ñëw di wammat gileemu ndey Aïcha bi mu ni lii day occasion la bu rëy boo xam ni su ma sàgganee ba rate ko ba mu rëcc ma dootuma amati occasion bu ma yàqee bu mën a mel nii ci la daal di wëlbatiku rek kobas ay gars yi jot yàkkaarloog moom mu ñu leen ah soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tardé àll di ñëw ànd ak benn góor ñoom ñaar dong ci àll bi billahi li ma wér moom mooy safwaan muccul ci Aïcha Aïcha muccul ci safwaan mu tàmbali di wasaare kàddu gi ñu koy jokk jaraat di ko tasaare buy dem ci marché yi di dem ci hôpital di dem ci dëkk bi ruq su nekk mooy waxtaanukaay bi bi loolu amee nag yonent bi daal di jot ci wax ji sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nday Aïcha mu ni ca la ña sànku ca xaadisa ba sànkoo mooy ña nga xam ñoo doon jël wax ji di ko toxal di ko jokk jalante muy nag ka nekkoon bopp ba mooy Abdullahi ibni Ubay ibni Salul doonte am na ñenn nit ci ay saxaaba ñoo xam ni njuumte lu rëy dal na leen bañ wax ca ñooñee Hassan ibni Saabit bokkoon na ci muy waykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen xam ngeen ko waxoon nañ ko ci buntab baabul masajid kere ba ñuy wax ci ndax way ci jàkka dagan na wala déet xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko waa Màkka doon saagaaka xas ba xas ya méttee ak ay saaga daf ñu woon saxaaba yi kan moo may fayul ci ñooñee yàlla ni ko man de xam naa ne mbir mi métti na la xad naalam innahu la yaxzunuka ma yaquluun li ñuy wax de métti na la wala inna la yadiqu sadruka bi ma yaquluun li ñuy wax kat métti na la waaye métti na la jërul mu lay métti ndax maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusuli min qablik waxee su la lu dul lañ waxoon yonent yi la jiitu ca la yonent ni woon saxaaba yi ana kan moo may fayul ci gaa yooyu xasan ibni saabit ni ko man maa lay fayul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ni ko li ma jaaxal de moom mooy ña nga nar a fay ci ñoom ñooy samay mbokk te boo leen xasee di nga xas mbokk ga te boo xasee mbokk ga da nga ma xasaale te doo ko yëg mu ni ko danaa la seppi ci mbokk gi seppiwaale say mbokk comme ni ñuy seppee kawar gu tàbbi ci mooñ ca la ko yonent bi salaa sallam ñaanalee ni ko wayal yàlla mi ngi la boo rek jibril mu lay dëgëral ba yonent bi salaa sallam doon na teg minbar bi ci biir jàkka ji yéegal ci xasaan xasaan di ko tagg di ko wax ay wax yoo xamante ni ci xeet tagg lay dugg xoolal nday Aïcha li xaadisa bi doy waar doy waar lool mësul nangu ku yëkkati kàddu gu bon di ko teg ci kaw xasaan lu tax muy ndax xasaan kat moo doon défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo doon wax kat fa inna abi wa walidahu wa ardi li ardi muhammadin minkum wiqaa'u man day ak sama papa ak papaam muy sama maam ak sama der bii sama jëmm ji ñun ñëpp dañuy nekk protège di protéger yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañuy défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy xeexal di ko bàkk di ko kañ kon kay défendre yonent bi bila shakk day défendre waatu njabootam kon bu kenn waxati ci xasaan lu bon nday Aysa mu ni bi ñu ñibbisee Médine ma daal di tëdd feebar nit ñi moom ñi ngi wasaare kàddu bi jataay boo dem kenn waxtaaneetu comme ni ngeen ko xamee rek xew-xew bu am da ngay gis ni xew-xew boobu fan yooyu yëpp boo demee ci journaux yi ci la ñuy bind boo demee ci télévision moom la ñuy wax soo demee ci rajo bi moom la ñuy wax garam place yi moom la ñuy wax marché yi hôpitaux yi moom la ñuy wax maanaam daal ci misaal même jëkkër yi ak jabar yi sax seen biir kër yi moom la ñuy waxtaanee nday Aysa mu ni man lay wax ji bari lépp man yëguma sax lu xew ndax boobu mi ngi feebar mu ni mu tëdd feebar weer woo xam ni mi ngi yëg ci xeeti métit loo xam ni lu jéggi dayo la mu ni yëguma nag lu xew waaye am na settantal bu ma def mooy gis naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeewante gi mu amoon ak cofeel gi mu amoon ci man saa su ma feebaree amatu ko ndax saa su ma feebaraan dara ñëw di ma raay di ma ñaanal di ma waaye settantal bi ma def daal mooy cofeel gi mu doon am ci man amatu ko ci man li ma ko wan moom mooy su dikkee du nangoo toog ci man te it même bu may seet sax du nangoo tudd sama tur day dikk rek ni naka malaat mbaa mi ngi tane ndekki boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàq nañ xel ba mu yàqu waaye nday Aysa moom yëgul lu xew mooy li ma seetantal daal mooy amatul cefeel ci man ak ñeewant te su duggee du nangoo toog ci man ñaareel moom mooy sama tur sax du ci jaar ana Aysa ndax mu ngi tane du ko wax waaye danaan ana seen malade bi ndax mi ngi tane saa saa sax mu ni ana kooku mbaa mi ngi tane du nangoo sax jaar ci tur bi mu ni amuma lu dul daal benn bis ma génn ànd ak yaayu mistax mistax kenn la woon ci saxaaba yi nga xam ne teewee nañ Badr jamono jooju saxaaba yi amuñu woon ay douche ci kër comme ni ñu niñ ko amee waaye dañu doon faj seen aajo ci àll mu ni daawuñ génn lu dul heure guddi nag mu ni benn guddi rek ma génn ànd ak yaayu mistax mu ni ñuy dox ba mu yàgg mistax daal di fakkastalu ci yére yi mu soloon bi mu fakkastalo mu ni tos kare ñeel na mistax yaay Aysa ni ko tuub tafal sa gémmiñ li nga wax ak rëy naka ngay xasee di ŋàññi koo xam ni teewee na badr xam ngeen ni sasam ne woon na waa badr bu leen kenn ŋàññati aman na yàlla sëkku na leen leen def leen lu leen neex jéggal naa leen seeni bàkkaar muy naka ngay ŋàññee koo xam ne teewee na badr ndaw si ni ko xanaa dangaa déggul li mistax di wax subhanallahi alazim xoolal ki ki nit li nday Aysa wax ji moo jur mistax mi koy nit li kon nëbbalu ko ndax lu bon kenn du ko nëbbal nit mu ni ko lu xew mu ni ko day dëppi nga jógee ca xeex ba ba léegi nit ñi ci dëkk bi yépp li ñuy waxtaanee moom mooy safwaan muccul ci Aysa Aysa muccul ci safwaan yaay Aysa mu ni biñ ma ko waxee dafa mel ni dañ ma fëgg aw yat ci saasa boo xam ne dafa yokk feebar bi ma yore woon mu ni ci laa daal di ñibbisi ci kër gi bi mu ñibbisee guddi la woon guddi googee dafa fanaanee jooy ba fajar jot gëmmul benn yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba jooy yi daf koo dépassé daf koo ëpp daf cee jaaxle mu ni jamono joojee ci laa daal di tàggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko man de damaa bëgg a dem ci sama ay way jur maanaam damaa bëgg a dem sunu kër sama kër baay ak sama kër yaay ndek Aysa mu ni li ma ci namoon mooy waxtaan ak sama yaay ak sama baay ndax li nit ñiy wax dëgg la wala déet ak bu dee dëgg ñoom lan moo ci seeni taxawaay mu ni ba ma tàggoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di may jox ndigal ma génn dem sama kër baay ak sama yaay bi mu yegsee xam ngeen papaam moo nekkoon Abu Bakrin Siddiq muy àndoor yonent saa sallam yaayam moom moo nekkoon Umm Rumaana mu ni bi ma dikkee sama yaay laa njëkk a tasee ci buntu kër gi ma laaj ko ni ko ndax li nit ñi wax dëgg la wala dëgg loolu rek moo ma fi indi yaay ji di ko defal naan ko defal ndànk àndal ak sa sago dalal amul benn jigéen joo xam ne yàlla may na ko ci taar nga xam ne Aysa ku taar woon na radiyallahu anha mu nekk ay wujjam ci seen biir kër te yàlla dénk ko taar lu dul ay coow dana bari ci ay de ab deram dalal nga ànd ak sa sago yii lépp yàlla dana ko leeralal nday Aysa mu ni ba ma waxee loola ci laa doog a xam ni kon ndekete xabaar bi dëgg la ndax su duloon dëgg du waxee nii mu ni guddi gi ma njëkk a fanaan ci sunu kër daf ko fanaanee jooyati ba fajar jot benn yoon moom Aïcha mooy ne ci li mu ni xapp ma ko ci guddi gi ndax am aw naqar ndax dañ koo tuumaal te gor su nekk gor la comme ni ñu koy waxee mu ni jamono joojee ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbir mi nag dépassé ko mu jéggi dayoo yàq nañ xel ba mu yàqu yaxet te amu ci lu ko wóor yonent bi jamono joojee yàlla wàccewul woon benn aaya toog na weer benn aaya wàcc subhanallahi alazim xoolal yàlla subhanahu wa taala lii nga xam du dëgg ñu teg ko ci kaw soxna ci gën ci mbindeef yi ci kaw suuf muy ay mbir yoo xam ni li mu yàq kenn xamul nu mu toll yàlla téye wax yi bi jibril wàccul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tolloog weer ngir yàlla namm ci nattu jullit ñi xool ak segg mu ni ci la yonent bi jaaxlee woo ali ibn abi talib ak usama ibn zayd ngir diisoog ñoom ci xew-xew bii ñoom lan moo ci seen xalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wooyee usama mu ni ko waaw usama li nit ñi wax dégg nga ko wala déggoo ko usama ne ko lépp koy dégg naa ko mu ni ko lan moo ci sa xalaat mu ni ko yonent bi ahlak ñii sag njaboot lañ yaa ñu leen gën a xam de waaye xamuñu ci ñoom lu dul aw yiw kon nit ñi liñ lay wax bul ko gëm te nga xam ne du dëgg xoolal Usaama lii moom moo nekkoon taxawaayam ci xew-xew bi yonent bi salaa sallam woo Ali ibn Abi Talib ni ko Ali xew-xew bi loo ci xam mu ne ko yonent bi daal bul sonal sa bopp jigéen ñi bari nañ ci kaw suuf ñu mel ni Aïcha su fekkee nit ñi liñ la wax daa dala di sam xel wala yaakaar nga ne dëgg la fase ko nga takk beneen jabar te it sax boo ci bëggee lu gën a leer wool bàyyi la mi ne ci kër gi muy jaam bi nga laaj ko moom xam na kuy Aïcha boo ko laajee dana la wax ndax xew-xew bi dëgg la wala déet yonent bi sallam mel ni koo xam ni maanaam jaaxle gi dafa jéggi dayoo fu mu yaakaar ni bu fa demee rek dana fa amee lu leer dana fa dem ci la daal di woo Barira te Barira mbindaan la woon ci ne ma ko mën a tuddee ci kër ga mu ne ko dégg nga xew-xew mu ne ko waaw mu ne ko loo ci xam Barira mu ne ko yonent bi Aïcha sa soxna la xale bu ndaw la boo xam ni xamul dara gis nga fi ñu doon reeree buñ ko fa bàyyi woon fa lay tëdd fanaan fa nelaw kon xam nga ni kii liñ koy tuumaa lu dëgg loolu daal laa xam ci moom ba mu waxee loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ah daal di bàyyi noonu ba loolu amee benn bis yonent bi sallam taxaw ci kaw minbar bi dajale saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ba mu leen dajalee mu xutba bi mu xutbaa mu ni leen ana kan ci yéen muy jub joxel ma ngànt ci waajoo xam ni dugg na ci sama biir njaboot jaxase ko ba mi ngi ci na mu abdullah ibn ubay ibn salul ndax moo wasaare xew-xew bi ku ci juum ci jullit ñi gëm yàlla rek moo la ko yóbbee ndax moo nekkoon bopp naafiq mu ni kan moo may joxeel ngànt ci waajoo xam ne dugg na ci sama njaboot jaxase ko lëjal ko te li ma wér ci wóor ma mooy waa jiñ wax ni moom moo def ak lu bon Aïcha man day gëwuma ko man yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax day xamaluma ko lu dul lu baax fu ma jëm mi ngi ànd ak man te saa su daan dugg sama kër ñoo daan ànd te li ma wér ci wóor mooy xamaluma ko bon xoolal donte tuuma ji yàq nam xelam téewut lam xamoon da koy seede mu ne xamaluma ko lu dul lu baax ba loolu amee ci la benn saxaaba jóg bu ñuy wax Saad ibn Muaz Saad ibn Muaz mu ni man yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa fas yéene joxeel la ngant ci waa jooju ngant bi mënul nekk lu dul lii su nekkee ki wax wax ji ci giir ak aws la bokk danañ dóor ak doxam mu dee léegi ñu noppalu su fekkee ci moom fekk moom mi ngi bokk ci giir ak aws su fekkee ci xasraj la bokk suñu mbokk yooyee wax ñu lan nga bëgg ci moom ñu defal lu ko léegi beneen saxaaba jug bu ñuy wax Saad ibnu Ubaada Saad ibnu Ubaada ku njëkk mooy Saad ibnu Muaz Saad ibnu Ubaada moom mi ngi faroon ci giir Xasraj mu mel ni rek borom bi nam na fitna ju rëy tey yëkkati ko ci biir jullit Saad ibnu Ubaada jub ni ko da ngay fen ci biir jàkka ji mu ne ko da ngay fen li ki wax wax ji lim bokkul ci sa biir famille moo tax nga wax nañ ko rey waaye su nekkoon ci sag njaboot la bokk doo bëgg a wax loolu yaay Aïcha mu ni Sa'd ibn Ubaada ku baaxoon la waaye keroog day dafa mel ni rek xamiya muy sansu par parloo daf koo xaw a jàpp ci ak giir ak famille ba loolu jógee beneen waaye bu ñuy wax Usayd ibn Xudayr mbokkum ko njëkk a wax la muy Saad ibn Saad ibn Muaad mu jug waxati Saad ibn Muaad ni ko yow it da ngay fen te li ma wér moo yow naafeq nga boo xam ne da ngay défendre naafeq yi sunu yonent bi waxoon rey leen ko danañ ko rey léegi ñaari giir yi nag maanaam fitna tàmbalee jugaat nga xam ngeen aw sa xasraj yonent bi mu ñëwee Medine daf leen a fekkoon ci ay xeex yu tar yoo xam ne dafa jéggi dayoo xeex yi ay ati ati ati at ñoo xam ni seeni maam sax balaa ñuy judd fekkoon nañ ci xeex yi yonent bi mu dikkee calmer xeex yooyu ba dalal ko ba ñoom ñëpp nekk ay mbokk moo tax yàlla mu ni wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaa fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmati ixwana loolu ñu ngi ci nam mu aw sa xasraj ba même yonent bi defaroon na leen sax waaye dem nañ ba ci gannaaw bi léeg-léeg dañuy jékki-jékki mel ni rek mbiru ceddo ko day commencé génnee ci benn waaye bu seytaane bu bon benn bis mas naa toog ci biir giir yooyu bëgg a jaxasewaat dekkal fitna mu commencé nan yée sa waay yéen a ngi fàttaliku at sàngam xeex bi ni meloon ay cey loolu de nag maam lam ci jublu woon moom mooy yëngalaat dënn yi te lam ci bëggoon tuuti kon mu am ko ca ci saasa rek dënn yi daal dinay jug ku nekk dugg ci sa biir néeg ngànnaayowaat sa jaasi benn waaye daw wooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ba yonent ñëwee dajal leen keroog daf leen a waar saxaaba yi danoo jooy a jooy ba seen yére yi tooy nga gis ñu jug di kottante maanaam kontaan lool ngir yonent bi lim leen musal ci musiba yooyu nga xam ca lañ nekkoon moo tax yàlla day ko kuntum ala shafa xufratin min annaar fa anqadakum minha toogoon ngeen ci kàmb ak sawar doon ci waaj a tàbb borom bi subhanahu wa taala xittili leen ba fitna ji tàmbali nag coow li di jug ci jàkka ji ba saxaaba yi am ñu nar a rocceeku jëli seen i jaasi ci la yonent bi commencé di leen dalal wax dëgg yàlla lu fitna tàbbi woon tàbbi saxaaba yi bokkuñu woon ak ñun ñu yaru woon lañ ñu déggoon ndigal lañ bu yonent bi ne toog leen dañuy toog benn bis Abu Hurayra da doon julli si juma mu tardé mu ñëw ba jub jàkka ja mu dégg yonent bi saasam naan toog leen Abu Hurayra daal di toog fekk mi ngi toog ci naaj bi yonent bi mu génnee mu gis Abu Hurayra dafa ñaq ba yëre bi tooy xepp mu ne waaw kii lu ko dal fu mu jóge mu ne ko bi may ñëw damaa ñëw bay dugg si jàkka ji dégg nga ni toog leen ma far toog ci naaj bi ca la ko yonent bi ñaanalee barke moom Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda kon saxaaba yi bi leen yonent bi ne toog leen ñu daal di toog bi ñu toogee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di leen waar fàttali leen delloo leen ci yàlla wax leen wax leen ba seen xel yi daal di dal ndeki xew-xew boobu nday Aïcha tamit jotas na ci mu ni guddi googee bokk na ci guddi yi nga xam ni muy ñetteel bu guddi ci minitili yoo xam ni daf koo fanaanee jooy ba fajar jot ndax rek am lu ko naqay ci li wóor na ko ni li nit ñi wax du dëgg mooy Safwaan muccul ci Aïcha Aïcha muccul ci Safwaan amul lu may sikk sàkk ci ni njaaloon nañ loolu la waa ji waxoon yàlla na rëbbam yàlla tàbbi ci kaw muy Abdullah ibn Ubay ibn Salul mu ni ba loolu amee rek mu ni ma toog suñu kër fanaanee jooy ba fajar jot ñu xëy defe ni ca la yam mu yendoowaat jooy yi Aïcha mu ni keroog jooy na loo xam ni jàppoon na ni xolam bi dana dagg ndax aw naqar baayam ak yaayam ñëpp ñi ngi toog tiim ko kenn xamut loo ciy wax fi mu toogee noonu ci diggu bëccëg gi di jooy te fanaane woon na ko ñu jékki-jékki rek benn jigéen daal di fëgg bunt bi daal di yegsi ci wàllan saar jigéen ji xaritu Aïcha la woon moom it wax dëgg yàlla ku bëggoon Aïcha la bi mu yegsee moom it mënatul téye boppam mu yegsi commencé di jooy comme Aïcha ñoom ñaar ñu nekkandoo ci kër gi di jooy jooy yu yàgg te metti ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge këram fekk leen foofa bi yonent bi fëggee yaay Aïcha mu ni ñu daal di koy ubbil biñ ko ubbilee laajul sax nan la Aïcha def booba yàq nañ xel ba mu yàqu li mu dikkee mu ni ana malade bi mbaa mi ngi tane daal di toog mu ni li ma feebar lépp seetlu nañ du jaar ci sama tur te it bu dee toog du nangoo toog ci man day dem toogi feneen mu ni bi mu toogee mu tàmbali ubbi kàddu sant yàlla subhanahu wa taala mu ni yow Aïcha jot naa ci say mbir li ma ci jot mooy li ñuy wax ne da ngaa njaalo ak safwaan Aïcha su nekkee nit ñi li ñuy wax dëgg la da ngaa def bàkkaar maanaam su fekkente ni ku set nga defoo ko wóor na ma ne yàlla dana la setal waaye su nekkee li ñuy wax yaa ko def kon moo lay wan ni kon doon ci gëmu ko it am na lu ne ci xel su fekkee yaa ko def tuubal dellu ci yàlla subhanahu wa taala mu ne fa in kunti almamti bi danbin fastaghfirullah su nekkee da ngaa def ak njombe tuubal nga dellu ci yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla kat ku bari njéggal la day baale ndax kat ci def bàkkaar saa su tuubee dellu ci yàlla borom bi dana ko baal yonent bi salaa sallam ba mu paree yaay ay si mu dafa mel ni rek sama rangoo ñi daa daal di fer nag ma jug toog bi mu jógee toog mu ni bàyyi dama bëgg nga tontul ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li muy wax Aboubacar ni ko man lu may tontu man ndax am naa lu ma wax mu joxoñ yaay ji ni ko na ko tontul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaay ji wax ko la Aboubacar wax lu may tontu ndax man am naa lu may wax yaay Aïcha mu ni ma nit ma sant yàlla subhanahu wa taala mu ni jamono jooje ndawe naa ci ay at loo xam ne li ma mokkal ci alquran sax bariwut mu ni jamono jooje ma daal di wax yonent bi ni ko xew-xew bi yàgg nañ koo wasaare di ko tasaare ci dëkk bi ba ngeen dégg ko moom sax ci seen biir xol yi su ma ko weddee du tax ngeen gëm ma ndax sax nañ ci seeni xol ba ngeen jàpp ni dëgg la ba pare te su ma nee dëgg la tooñ naa sama bopp ndax wóor na ma ni ku set laa wecc waaye nag nañ dem yàlla subhanahu wa taala dana dana setal mbir yépp li ma wér te wóor ma mooy jàpp ma ci lu dul la yuusuf jàppoon la bàyyi yuusuf jàppoon mu ni jamono joojee njaqareeg mettit ak naqar dal na ba xaw ma sax bàyyi yuusuf mu ngi tudd tuddati bàyyi yuusuf mu ngi tudd yaaqub xamatul sax nu yaaqub tuddati mu ni awma benn misaal mooy di lu dul aba yuusuf bàyyi yuusuf ndax nee na xamatuma sax yu yuusuf nu bàyyam tuddati ndax naqar wu ko jàpp muy la may wax mooy fa sabrun jamil wallahu almustaanu ala ma tasifun danaa muñ muñ gu rafet gu ma dul boole jàmbat ak saali te it nag li ma wirti woon mooy liñ may melal ci ay nar bis dana ñëw yàlla dana ma setal mu ni musuma njootu ni ni ma doyadee ak ni ma ñàkkee solo yàlla dana wàcc ay aay yoo xam daf may setal man Aïcha waaye de amoon naa kóolute ni yonent dama sa tëdd benn guddi mu gént yàlla wan ko ci ay nelaw mbir mi ndax dëgg loolu dëgg ne xam ngeen ni géntug yonent dëgg la mu ni ca lañ continuer noonu mu ni fekk loolu lépp yonent baa ngi toog sallallahu alayhi wa sallam ah foofu daal fi yonent bi waaj a tàggatoo rek mu mel ni daal yonent bi ku siburu di yoon saa su ko wax yu gi doon dikkal noonu lay mel dafay mel ni kuy lox bu yéegaan ci kaw géléem dafay diis ba géléem gi dafa yës dootu ko àttan ci benn ci saxaaba yi mi ngi nettali mu ni benn bis bi wax yu gi wàcc mi ngi fekk mu jël poojam teg ko sama tànk mu ni xaw tuuti kon sama tànk bi dammatoo ndax diis gu mu diis te bu dee ñëw jamono yi sedd ba nit ñi sol ay jaget dafay ñaq bay lox moom yonent bi sax maanaam dafay ñaq bay siit ndax wax ji bu dee ñëw ni mel te it nag loolu lu yenu maana ndax yàlla ne woon na ko inna sanulqi alayka qawlan thaqila liñ nar a wàcc ci di wax ju diis la mooy alquran mu ni jamono jooju rek ñu gis yonent bi mel ni ku commencé lox yaaya si mu ni ma xam ni kon wax yi moo nar a wàcc fiñ toog tuuti rek yonent daal di jóg bi muy jug mi ngi commencé di reetaan mu wax yaay Aïcha mu ni ko bégal yàlla subhanahu wa taala wàcc na ay aay yoo xam ne daf lay setal bi loolu amee Aboubacrine dafa kontaan ba kontaan gi jégg dayo mu daw songu Aïcha ni ko jugal nga daw sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha ni ko wallahi du ma ko sant ndax du moo ma setal ba ma koy sant yàlla subhanahu wa taala moom mi ma setal moom laay sant ba loolu amee yonent bi daal di jàng aay yi muy inna alladina jaa'u bil ifki usbatum minkum ci suuratu nuur ba laaye yi jeex léegi jamono jooju dafa fekkoon misbax mu mi nga xam bokkoon ne ci ñu doon wasaare xabaar bi doomu bàjjen la woon ci abu bakrin te amul woon doole dafa ñàkkoon te abu bakrin ku ñu xamoon la ci def ak mbaax ba gaa yi dañ daan wax sax abu bakar mii daal jaam yi muy jënd ak ñi muy defaral daa bëgg rek bu ko yéefar yi dee sonal jaam yi ñëw di ko défendre yàlla mu ni déedéet wa maa li ahadin indakum min niamatin tujza illa btigaa wajhi rabbihi al aala wala sawfa yarda amul kum siqal teraanga tax mu lay defal lii lu dul namm ci jëmmi yàlla kese wala sawfa yarda buy dee ma koy fay lim defoon loolu mi ngi wàccoon ci Abubakar Siddiq bi muy goreel ñoom Bilaal ak ñoom Suhayb bu gaa yi naan daa bëgg gaa yu am doole yooyu rek buñ ko fitnaale ñu ñëw daal di koy dimbali yàlla mu ni déedéet noonu la doon jëflanteeg mistax mu fat mistax di ko dundal di ko defal léppam ba pare nekk mistax bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon wasaare xibaar bi abu bakrin mu ni wallahi alladi la ilaha illa gayru abadan yow mistax sama kër doo fi dëkkati te dootu mën a dundalati génnal sama kër mistax nga bàyyi bagaasam génn bi mu génnee amul fu mu jëm ku koy fat mu dem ca ko tey jàkka ja ak yi bagaasam yàlla daal di wàcc ci biir aay wala ya'tali ulul fadli minkum wa saati an yu'tu ulil qurba bu mu gëñati mukk ñi nga xam ne dañoo am ay teraanga ak ay ngëneel ñi dootuñ defalati ñi nga xam ne ñooy seen i jegeñaale xanaa bëggu leen yàlla baal leen jéggal leen gis ngeen Abu Bakrin ba aay bi wàccee dafa daw aw xel dem yenul mistax bagage yi ni ko wallahi ñëwaatal maa lay dundal sama biir kër moo ko yenul indil ko ko ci biir kër gi mu ni man day bëgg naa yàlla subhanahu wa taala jéggal ma samay bàkkaar kon foog ma jéggal la mu yenul ko ay bagaasam joxaat ko néeg di ko dundal comme na mu ko doon dundalee te waatoon na ne du ko dundalati waaye yàlla mu ni bul waatati mukk demal nga jëfiwaat ko kon ndigalu yàlla subhanahu wa taala ba loolu amee yaay Aysa mu ni ña daanu ca xew-xew ba nag daanu ca naafiq bu bon muy Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul yóbbee leen ko Xassaan ca la woon te xam ngeen saxaabu màgg la woon wax dëgg yàlla Mistax ca la woon bokkoon na ci waa Badr ximnata bint jaxsin mbokkum zeynab bint jaxsin soxna yonent bi salaa sallam ca la woon niki noonu tamit am na yeneen saxaaba yoo xam ne bokkoon nañ ca ba loola amee yaay Aysa mu ni yonent bi salaa sallam woo zeynab bint jaxsin te loolu mi ngi nekkoon ci biir xew-xew bi zeynab wujju la woon ci yaay Aysa mu bokkoon ak ximna yonent mu ni ko zeynab lan nga xam ci xew-xew bi xoolal allahu akbar aka neexoon tey bépp ku nekk moroomam wucc ñu la ciy laaj seede nga jël misaal bii yonent mu ne ko loo ci xam mu ne ko déet yonent bul ma dugal sàmmal ma sama kàddu sàmmal ma samay nopp te nga dimbali ma kii daal xamaluma ko lu dul lu baax duma ci njort ci moom lu bon abadan lu baax laa xam ci moom wasalaam xoolal subhanallahi alazim maanaam nit ñi noonu lañ meloon moo tax ñii bu leen yàlla waxee radiyallahu anhum wa radu anhu wallahi méritoo nañ ko te jombu leen maanaam jombu leen yayoo nañ ko ndax ay jëmm lañ yoo xam ni dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam mbindeef yi ci kaw suuf dootuñu xamati génération bu mel noonu moo tax yonent bi ne woon xayru naasi qarni summa alladina yaluna génération bi gën ci génération yi maas gi gën ci maas yi mooy ga àndoon ak man ga ca topp mooy ga topp ca maas googu muy taabiay ni ga ca topp mooy taabi taabiay ni ci ña topp ci seen gannaaw waaye yàlla nattu Himna bint Jahsh mu nekkoon mbokkum Zeynab bint Jahsh mu ni moom yàlla natt ko bu bokk ci ña tàbbi ca njuumte ya mu ni xem na amaan na booba daan nam rek martabab Aïcha wàcc na xam ngeen ni soxna yonent bi saa sallam Aïcha ak kooku muy Zeynab ñu doon diirante mbagg ci ni ma ko mën a tuddee maanaam daal ñu taaru loon wañ te nekkuloon ay mag te it daal maanaam amoon nañ gëdd ñoom ñaar daal su doon diirante mbagg la ñuy wax kon ñoom ñaar la woon ci soxna yonent bi saa sallam mu mel ni rek xem na dafay def donte jubluwu ca loolu waaye loolu lay nuru ngir martabab Aïcha ci yonent bi wàcc martabab mbokkam moom muy Zeynab bint Jahsh yëkkati ko yàlla natt ko mu far tàbbi ca la nga xamante ni moom mooy njuumte Safwaan nag moom mi nga xam ni moom la xew-xew bi daloon ci kawam kenn dégg ko mu wax lu metti metti rek mu ngi tëju biir këram di muñ te xam ni tuuma jiñ ko tuumaal du dëgg insha allah ni yàlla di wàccee ay aaya di leen setal noonu yàlla dana wàcce aaya setal ko ne doomu nay jamono jooje moo nekkoon jamonoy wax yu jamono jooje naafiq da doon tiit lool aaya wàcc ndax yàlla mu ne yaxdaru almunafiquuna ñoom dañuy tiit ab saar wàcc boo xam ne dafay melal seeni melokaan aka bari ay xew-xew yu xew yàlla wàcc ci ay aaya di setal jullit ñi di setal wala di leeral mën naa ci joxe benn misaal benn bis ci bis yi kenn ci saxaaba yi dafa amoon papay jiit li bi mu amee papay jiit li benn bis yonent bi daal di am lu mu digle ci xeetu saraxe gi demee noonu mu ni papay jiit li ji da koo bëggoon bëgg goo xam ni damaa teelootul ñoom ñaar seeni tur waaye soo delloo ci tafsir ibni kathir lii may wax da nga ko ci fekk mu ni jamono joojee bëgg naa papa jiite jiit la ji bëgg goo xam ne jéggi na dayoo mu ne yonent bi digle ba noppi waa ji ni yonent bee ko digle mu ne waaw mu ne bu dee moo ko digle dana xam ne ñoo gën a bone mbaam mu ne bi mu waxee loolu mu ne damaa dar sama gémmiñ ma ne ko wax nga lu rëy loo xam ni su ma ci noppee noppi naa ci lu rëy kon sañu ma cee noppi te su ma la boolee boole naa la ci lu rëy sa der dana xaawee ko mu ni mënatuma koo muñ rek ma dem ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nittile ko ko bi mu ko ko nittilee yonente bi ni ko toogal mu toog mu ne ko dem leen wooyu waa jooju bi waa ji ñëwee yonente bi ni ko yaa ko wax mu ne ko billaahi waxuma ko du man maa ko wax di waat di gëñ di waat di gëñ naan ko waxuma ko yonente bi gestu waa ji muy xale bu ndaw boo xam ne kuñ xamoon ci mbaax la dëggu ak wax dëgg yonente bi ni ko ah yow yaa wax ji moo ko wax de waa ji daal tontuwul yonent bi lu dul wëlbati ko rek tàllal ay loxoom ak jooy yi di wadd ci ay loxoom muy ñaan mu ne yàlla subhanahu wa taala su fekkee lii ma wax dëgg la su fekkee kii day fen maa ngi lay ñaan nga xetti li ñu wàcc ab aaya léegi léegi léegi léegi buy leeral mbir mi rek yonent bi commencé lox sallallahu alayhi wa sallam benn aaya daal daal di wàcc yàlla mu ne yaxlifuuna billahi ma qaalu wa laqad qaalu kalimatal kufr ñu ngi gëñ naan waxuñu ko te yàlla mu ne lañ wax sax kàddu la gu leen génn ci islam fa yonente bi saa sallam xam ni kon waajee fen kii ma wax dëgg lii boo delee tafsir ibn kathir yoon tafsir aaya ji ma ngi ko fay na ci gi ni ki noonu xew-xew bi yàlla wàcc aaya ay aaya di sa tanday aïcha radiallahu anha kon daal ci tënk xaadisa bi moo nekk noonu léegi nag mu des lan moo nekkoon taxawaayu saxaaba yi ba xew-xew bi amee loolu lañ namoon na ci xew-xew bi ndax li tax ñu taamu darsu bu mel ni di ci waxtaan moom mooy bari na lu ñuy dégg ci rajo yeeg waxtaan yeeg conférence ñuy waxtaanee waxtaan bu mel nii waaye dafay mel ni rek ku dégg rek est-ce que cay ay waay doy na waar waay ak a yéemu ak a metti ak a naq maanaam daal mel ni daal genre triste lañ koy jàppee te fekk du lool lañ ca bëggoon lañ ca bëggoon mooy mu nekkee ibratan li may yaxsha dikra li man kaana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid léegi nag loolee lañ ci namoon moo tax ñuy bunt bi def mawaqifu baadi saxaaba xawla hadihi alxaadisa lan moo nekkoon taxawaayu saxaaba ya ba xew-xew bi amee nañ njëkk ci yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi soxnaam la ñu tuumaal kon képp koo xam ni tuuma ji daa dalata ci sa kaw soxna jëlal la yonent bi salallahu sallam nga def ci misaal foofu yonent bi moom la yàllay wàcc ci mu waxyu bi wallaay bu taxawoon mu ni lii du dëgg bu leen ko gëm dellu leen ci seen i liggéey danañ dellu ñoom ñëpp seen i liggéey ndax gëmoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag yonent bi defu ko lu tax defu ko mooy seytaane waxu dëgg waaye yàq nam xel bu ko waxoon nit ñi dem dana am ñu ko gëm waaye dana am ñoo xam dana am lu des ci seen i xol waaye bu alquran du ñuy jàng wàccoon moom ñëpp ay gëmandoo moo tax yonent bi téye làmmañam waxu dara kooku benn la ci jàngale yi ñu ciy génne bokk na ci moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu tuuma ji tabbi tabbi ci kaw soxnaam lum la jege jege jege jege bul weddi wala ngay saxal wala ngay dëggal wala ngay xas wala ngay mer lu moo tax yonent bi daal jàpp na mor sa njàmburam waaye wax ko lu bon wax ko lu ñaaw niw ko it li ñu wax dëgg la lu misaal la ñeel képp koo xam ni borom kër nga tuuma daal ci sa kaw soxna xam ngeen loolu dañ koy dund ñaareel bi moom mooy ndey Aïcha moom mi mbir mi tàbbi ci kawam moom de li wax ji bari bari bi ko yonent bi ne su nekkee da ngaa set yàlla dana setal su fekkee da ngaa def bàkkaar tuubal mënoon naa wax du dëgg mënoon naa wax dañoo fen ndax wax na dëgg su ko waxee wax na dëgg waaye defu ko ndax mooy nit ñi mbir ma sax na ci seeni xel ba noppi bañ dëggal ko buñ ko dëggalul cent pour cent it seen xel ñaaw na ci waaye comme jamonoy wax yu la moom gëm na ni yàlla subhanahu wa taala dana ko setal comme jamono jii nag gi nekk du jamonoy wax yu kum dalati ci sa kaw soo mënee setal setalal soo mënul setal jullil nga ñaan yàlla subhanahu wa taala dana la xitali insha allah fam lay xitali nag moo ko xam na ko ma yattaqi allah yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqahu min xaytu laa yaxtasib ñu jàll safwaan ñu ngi ko séqaloon safwaan tëj na gémmiñam kenn déggul mu wax néew du dëgg néewut dañuy fen néewut dara te fitna ji dafa jéggi woon dayoo benn bis sax xasaan dafa romboon safwaan di ko gaarawaale di ko way di ko gaarawaale ba safwaan xaañ ko ci bopp bi mu dagg bañ jàppoo leen yét yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii lépp pour wane leen fitna bi jéggi woon na dayoo boo xam ni kenn xamatul li ngay liggéey ci sa liggéeykaay lu mu doon fii ak mbir mi leeragut woon ay xuloo ki xiiroo ki ŋaayoo ki xaañante di ci am ñii di tëkkoonte kii ku nekk di wax sa morom lu mel ni kenn mësu koo dégg ngir rek loo xam ne benn naafiq moo ko sabab muy bomb bu mu sànni ci biir jullit ñi muy bombi wax te moo gën a bon ndax fakastalub xeer mën naa moxañelu tànk waaye du yàq loo xam ni ëllëg faaw lay doon waaye fakastalub làmmiñ day mën naa raylu sax nit ñu jàll Aïcha ku ko jur Umu Rumaan ak Abu Bakri sa doom suñ ko tuumaalatee wala su tuuma tàbbeetee ci kawam wala yu mel nii moo xam fu mu dem de sëy la lu mu mën ci doom sa taxawaay bu mu nekk mukk di ko weddil wala ngay gëm waaye sa taxawaay mooy nga dal ndax boo ko gëmee te fekk set na ëllëg gàcc dana la ca fekk te soo ko weddilee ba ëllëgee bu fekkee ni moom la dootoo xajati ci société bi ndax ba ñu waxee tontal yonent bi ñu ne ko ñun amuñ leen luñ tontu ndax wax dëgg yàlla xam nañ seen doom yar nañ ko ci ni loolu moom musuñoo xalaat ni dana ko def waaye nag comme wax ji tàbbi na ah nañ toog di xaar amaana yàlla subhanahu wa ta'ala dana génne loolu taxawaay la ñeel képp koo xam ni borom kër la bu tàbbi so fitna tàbbee ci la nga xamante ni moom mooy njaboot